mbokk internet di ziar naa leen mbaa yéen a ngi am jàmm tey nag ma ñëwaat ak yéen ci seen cinquième partie histoire waa ji nga xam ne mook jabaram ji dañoo amoon ay jafe-jafe jabar ji defoon ko ay xeetu violence ba nga xam ne ñoom ñaar seen sëy bi tribunal la mujjee ci quatrième partie bi nag maa ngi toll woon fi nga xam ne jabar ji dem na ba daal di koy sosaloon ci tribunal ba daal di koy jiiñ li nga xam ne moom sëy naag moom ñaari at ak juróom benn weer te mosu koo dundal te it daf koo jàppe woon jaam di ko maltraité moom ak xale yi ci noonu nag ci la yëkkati woon ay kàddu daal di wax madame le juge est-ce que kii nii bu fekkoon ne nekk na nit koo xam ne dañ koy violente dina mel nii mu mel ndax nag nee na fekk na jabar ji bi muy dem tribunal di ko sosal kon tarkalla macha allah te am na yaakaar na nit kuñ doon torturer ak di ko théoriser am naa yaakaar du dem tirbinal ba pare mel nu ko neex ñene nag ci la yëkkati woon ay kàddu ne madame le juge moom xalaatul sax daal di accordel ndaw si lii di divorce ndax ndaw si dafa dem tribunal ne moom day dem wuti li nga xam ne mooy di requête du fin fin de divorce te moom nag mosul yëg fenn foo xam ne ñoom ñaar divorcé nañ fa nee na bi mu yëkkatee kàddu yooyu madame le juge daal di koy accordel ne moom moo nekk ci dëgg léegi nag su ñu bëggee ñoom ñaar ñu divorcé à l'amiable ñu génnaat ci biti daal di bindaat requête bi kenn ku ci ne ci ñoom wax ne toppoo sa moroom lenn bu ko defee nag divorce bi dinañ ko mën a yombal nee na ndaw si daal di accepter divorce à l'amiable boobu parce que booba arrangé woon na ko nee ci lañu génnee daal di koy bindaat ci biti biñ ko bindee ku nekk signé nee na ñu indiwaat ko ñu joxaat leen rendez-vous deux mois ñu dem ñu daal di tas say bi mu ne bi ñu tasee sëy bi nag moom fekkoon na mu daal di dugal euh, plainte am depuis le 8 décembre mais da doon xaarandi moo taxoon yëngalul plainte bi mais vie que ndaw si dafa demoon tribunal di ko sosal te ndaw si su pexeem juboon kon moom tey jii dina am ay jafe-jafe mais lu tax ndaw si pexeem jubul mooy ndaw si amul benn preuve bu mu mën a teg ne moom da ko doon def ay xeetu violence ndax nag amul fenn fu wane ne ndaw si gaañ naa ko wala dóor naa ko ndax diggante bi ñu amee problème ak diggante bi mu demee tribunal pour sosal ma fekk na mu ngi toll woon ci juróom-ñeenti fan ba madame le juge sax dani ko loolu de yàggul te bu fekkoon ne it xeetu violence am kon heure bi dina feeñ ci yow nee na bi ñu tasee à l'amiable nee na man nag ci laa décidé carrément ne man tamit dama yëngal euh, sama plainte bi ndax nag ndaw si dafa ma jëlal ay jaasi tojal ma ay verre bëgg maa jam di ma xaañ ay kuur ak ay ànd cuuraay yu am xal mënuma bàyyi loolu mu sedd mu ne bi ma yëngalee dossier bi jamono yi ma koy yëngal daal di dem yóbbul ko procureur procureur jël euh, dossier bi moom it yóbbu ko polisu parcelle fii ci Thiès nee na ndaw si booba moom mi ngay zibile ak seen waa kër naan nax naa ko ba ñu tas ci jàmm ak salaam sëy bi yàlla moo ma ci dugaloon waaye fexe naa daal ba nax ko ba génn ci ci sëy bi ci jàmm ak salaam nee na nag ci la demee moom tamit fii di polisu parcelle daal di fexe ba jot lii di plainte bi daal di koy yóbbul kii di chef de quartier bi chef de quartier bi daal di arrangé wu ba ndaw si jot li nga xam ne moo di plainte bi nee bi ko ndaw si jotee nag ndaw si commencé tiit di wut ndimbal képp ku ñu xam na ne am nga ndombal tànk ci justice rek nee ndaw si commencé di fa woote di wut nu mu wutee ndimbal mais nee na man mi ndeyu mbili gi ba tey woowu ma daal di may njaan ndimbal mais daal xam naa ne it mu ngi woo ay autorité pour ñu lijjanti loolu di plainte bi nee na man moom ñu war a daje le 28 décembre ca police ba ñu war ñoo entend nee na jour boobu nag ñun ñaar affronté wuñ ñu ñun ñaar dañoo bàyyi kenn ku ne ci ñun dugg wax après sa moroom dugg nee na ma gis loolu ma xam ne lii jëmul kër ndaxte jour boobu mi ngi àndoon nag benn grande sœur am boo xam ne nee na moo nekkoon deuxième adjoint eh, ci benn maire bu nekk fii ci diwaanu Thiès nee na ma xam ne kii affaire branlon lay jéem a xëcc. ñu beneen bi aussi amoon naa benn témoin témoin boobu bi mu ñëwee woowuñu ko laajuñu ko xalaat te man ma bind ci dossier bi témoin bi fekk na bi may jëlal ay jaasi bi may jëlal ay cours ak di ma xëpp ay ànd cuuraay yi nga xam ne dafa amoon xal mu ne ma gis ñi ignoré euh, témoin bi ma xam ne kon ñii nag wax dëgg yàlla dañ ma bëgg a xeex ba dossier bi du mujj fenn nee na ci laa comprendre nag ma daal di jël sama ay matuwaay nee na le même jour bi nga xam ne ci lañu demee gisante foofu noonu ñu waroon ñoo àtte nee na sama ex bi daal di woo kii di sama grande sœur daal di koy xamal ne mi ngi jéggalu bu baax ci acte yi mu jot a def waaye it na ma sama grande sœur bi xamal ne moom du ko tuuti ci dëkk bi ndax moom su ma ko moytuwul dina ma def jëf joo xam ne du ma ko nettali ndax nag dossier bi ma dugal bu yeboo mu xam ne man moom la neex muy wuy si waaye bu ko neexoon dossier bi du mujj fenn te nag su ma ko moytuwul sama digganteeg moom dina dina ma yen lu ma àttanul nee na bi ma ndaw si waxee loolu jaarale ko ci sama grande sœur nag nee na ci laa ne ok kon ñii daal kon dañ may won ne man tekkiwu dara ci dëkk bi dossier bi du mujj fenn nee na mais ba tey ma taxaw ne kon su ma naroon a bàyyi dossier bi sax duma ko bàyyi mais nag avant ma ne damay du ma du ma bàyyi dossier bi dama ne vu que grand frère am sama waay la woon te coow yi daan am yëpp danaan ñëw di àtte di rafetal naa ko woo pour xool position wam ba xam jar na ma bàyyi wala déet mu ne ma yëkkati sama téléphone woo grand frère bi di ko expliquer situation yi xamal ne ko sarakkat man dama bëggoon même bu ñuy tas ñu tas ci jàmm ak salaam mais moom moo jël ay dossier yóbbu ko ay tirbinaal di ma sosal naan dundaluma ko wodduma ko te man bi ma koy takk maa ngi liggéey di am lu ma suturloo di ko jox dépense lépp lu jëkkër ak jabar warloo ma di ko doon ko def comme nag sa sœur dafa jógoon ngir yàq sama àddina heureusement pour man amul benn preuve bu mu joxe tribunal bu tax waa tribunal war maa daan loolu moo ma sauvé nee ci noonu mu doon déglu frère bi ban xeetu comportement lay am bu ko defee sax mu jaare fa bàyyi plainte bi mu sedd nee na grand frère bi di ko ñàkkee ker sa naan ko diw yow bul ma woowati aw ma lu may sekk ak yow ndax nag mënoo jël sama sœur eh, yóbbu ko eh, tribunal ba pare wëlbatiku naan dag may woo di am looy wax nee na ba pare frère bi tegal ko ci ne ko yaa ngi noonu plainte nga ko waaye gëmal ne sa plainte boobu du mujj fenn ndax ñun ñu ngi ci ginnaawam nee na nag mu gëm ne li ñu ne plainte bi du mujj fenn dëgg la ndax nag toog na ñaari weer yoo xam ne mënul fexe ba ñu woo leen mu ne ci la delloo ci procureur daal di fay fekk ki nga xam ne moo di secrétaire am waxtaan ak moom kooku xamal ne ko dossier bi dem na. bi mu ko xamalee dossier bi dem na nee na mu daal dellu fële ca police ba nga xam ne fa la ñu yóbbu dossier bi nee na mu laaj leen ndax dossier bi indi nañ ko wala indiwuñ ko nee na ñu di ko làkki daadaa naan ko dossier bi warul nee na lu tolloog 30 minutes ñooñu di wër dossier bi di dugg ko génn di déewante waaye nee na mu xam li mu xam rek toog fees place am xam ne dañoo bëgg a dàkk dossier bi ndax xëy na ndaw si day wane ne dafa am branlon waaye moom ci dëkk bi la dëkk xam na luy yoon xam na droit am dafa porte plainte plainte boobu dañ koo war a topp ba mu sës nee na ci la ñu duggee génn dugg génn nag ñu xam ne moom mii wax dëgg fa yàlla xam na ay droit am waxuma laa dara sax waaye propos yi muy yëkkati di ko wax ak ñoom ñoom xam nañ ne kii ko xam ay droit wam la Eh, ci la ndaw si ñëwee nag ndaw si nga xam ne moo yoroon dossier bi ni ko wax nga dëgg kay dossier bi man maa ko fàttee enregistré nee nag ndaw si mosul fàtte enregistré dossier bi ndax nag bi muy waxtaan ak ndaw si ndaw si mi ngi doon tàppe ci ordinateur am kon dañoo bëggoon a xëcc ay affaire branlon ba sama plainte bi du am suivi mais nag comme ci dëkk bi laa dëkk wan naa ne ndaw si comme ak frère am dañ ma menacé ne ma plainte bi du mujj fenn dinaa leen wan ne ci dëkk bi laa dëkk nee na nag ci la ñu xamee ne man mi fawuma ñu fexe ba enregistré waat dossier bi daal di koy duggalaat nee na man ak moom ci la ñu war a tasewaatee ñu war ñoo àtte le 15 avril bi passé mu ne le 15 avril bi ñu leen waree àtte nee na ñu dem nee na ndaw si da ko doon sotti ay ataaya bu tàng waxoon naa leen ko ci parti yu njëkk ya xëpp ko ànd cuuraay bu am xal ndaw si jëlaloon na ko jaasi dooroon na ko it ba mu dem clinique ba ñu bindaltu ko certificat médical ba it daldi koy may juróomi fan mu daal di noppalu nee na yooyu yëpp nag amoon na ci ay preuve ba tax Euh, bi mu bi mu ko yóbbee tribunal le 15 avril bi passé ñu taxaw ci kanamu àttekat bi nee na bi ñu xoolee lépp mu nekk dëgg ndax ñoom def nañu lu nekk nag pour niilal dossier bi ndax dañ ma doon jaay ne ñoom dañoo am branlon waaye man it ak ni ma dëkkee ci dëkk bi fexe naa daal ba amatuñu benn pexe boo xam ne àtte ñu rek lañu ñu war a def ndax nag dafa maa def acte de violence ma yóbbu ko tribunal dossier bi waruñu koo bàyyi mu sedd ñu jour bi ñuy àtte nag xeetu violence yi nga xam ne moom la ma def yépp am nañ ci preuve yu leer ne moom la ma def nee na nag ci la ñu taxawalee li nga xam ne moo di article 276 du code pénal que ne ndaw si li mu def acte de crime acte de violence la kon dañ koo war a teg ay daan nee na ci la ñu amandee ndaw si lii di cent mille jour boobu te nee na sax ci mbaaxam ak rek moo tax ñu ñu yemale fa acte bi nee na nag lu tax ma daal di koy punir parce que nag mënoon naa kaa baal en tant que jigéen wala mënoon naa kaa baal en tant que sama ex jabar mais nag su ma ko bàyyee woon noonu muy day yomb ndax nag ndaw si non seulement moo ma def xeetu violence ba pare ndaw si wëlbatiku yóbbu ma tribunal sosal ma tey jii su fekkoon ne réunir na ay preuve kon man sama àddina ndaw si da koy yàq mais nag malheureusement pour elle réunirul benn preuve te li mu ne dundaluma ko aussi jaam laa ko jàppee woon lenn ci feeñul ci moom ñëw tribunal dafa defaru ba jekk macha allah ba juge yi tamit bañ ko xoolee xam nañ ne nit ku ñuy tortire pendant deux ans six mois du yàlla du la may xeetu taar bi ak xeetu defaru bii nee na loolu moo ma sauvé mu ne vu que nag daf doon njëkkantu di yàq sama àddina man tamit ma fekk ko ci maninam beneen bi aussi lu tax ma daal di koy yëngal sama dossier ba ndaw ñu àtte ñu ba mu fay ma amande te it naroon nañ ko cee tëj ndaxte acte de violence boo xam ne tentative de meurtre la ndaxte nag dafa yëkkati woon ay jaaseeg lu nekk mu bëgguma koo def nee na benn ndaw si noonu la def première jëkkëram mooy jëkkëram ji mu tàggool ba des ci këram nee na ndaw si dafa jàpp première jëkkëram bi def ko ay acte de violence daal di koy def comme ni ma def nee na première jëkkër bi nag naar rien compris moom daal di taal otoom daal di koy abandonné lu tolloo ko un mois nee ndaw si ci la sukkandiku ba yóbbu ko tribunal ba jëkkër ji daal di perte lii di gàrdu xale yi ba perte it li di këram gi ba mujjee ko koo jox ndax lan moom moo ko def xeetu violence ba pare njëkkantu yóbbu ko tribunal ndax waa ji ñu ñu jugé ko ci lim ko abandonné pendant un mois nee na ndax boobu bi ko ex bi di bi ko jabaram bi di def noonu ex jëkkëram bi fekkoon na ne ñu tas lu tolloo ko trois fois nee na ndaw si xam ne mënatula sëyaat ak waa ji ci lislaam nena ci la ndaw si profitowee dem tribunal fexe ba jël gàddu xale yi en plus daal di tuumaal waa ji ba ñu jëkkati këru waa ji jox ko ndaw si nee na kon ndaw si dafa nekk jigéen boo xam ne dafa tàmm di créer góor pour mën a nangu ci yow sa alal wala say bien moo tax muy njëkkantu di def acte de violence ba pare di yóbbuwaate tribunal nee na beneen bi aussi bi gën a tax mu punir ndaw si parce que nag moom ndaw si avant ñuy sëy nee na ay mbokkam Casamance la ñu dëkk dañoo paase Casamance ba ceeskaay benn dëkk ñaari gaar daal di yàq seen xaalis ñëw ñaan si ko ndax ndaw si ci boppam moo bëggoon sëy bi nee na loolu nag mënu ko seetaan mu niil beneen aussi mooy que avant muy sëy ak ndaw si ndaw si ci boppam jàpp na ci loxoom moom waa ji ba yóbbu ko ci benn ville euh, sainte bu nekk fii ci Sénégal ndax ndaw si ci tarixa boobu la bokk ne ndaw si ne ko dañuy dem ba foofu ma firndeel la sama mbëggeel seddeel la ne soo ma takkee dinaa la sëyal sëy bu mucc ayib te it lu mënti xewit sëy bi duma ci génn nee na bi ko ndaw si yóbbee ci wasilaam ñoom ñaar ñu ñu daal di sukk jébbalu ci kanamu seen sëriñ bi ñu yaakaar nee ndaw si daal di ñaan foofu daal di taxaw ci kanamam ne ko dama lay won soo ma takkee ak lu mënti xew sëy bi duma ko tas te it dinaa la sëyal te yàlla tax ne bi ko ndaw si yóbbee foofu ba pare nee na moom it ci la jëlee ndaw si moom it yóbbu ko ci ci wasilaam yi nga xam ne moom it ñoom la yaakaar ba tax na nag jour bi mu koy yóbbu di ko présenté boobu takkagu ko waaye kii di sëriñam dafa jox ndaw si te boo xam ne ndax lépp moom moo ko waraloon ba pare it daal di yëkkati doomam doomam ànd ci ñiy ñaani ak ñiy takki ca sëy ba nag ndaw si bi muy tas sëy bi ak di ko sosal tribunal ñooñu ñëpp ndaw si waxu leen ci dara lu dul rek xale bu ndaw euh, jël ay sëy ay kilifa takku ko nga dem ba mu neexatu la nga dem sëy bi lijjanti ko ba mu ne kocc ni kara rek daal di koy tas nee na loolu nag bàyyi ndaw si te puniruñ ko loolu day yomb te it dina ko joxaale na ko leçon une bonne fois pour tout pour bu ëllëgee ndaw si mu bañ a defe ne góor bu mu gis rek comme première jëkkëram bi la mel da koy attaqué ci xeetu violence ba pare waa ji mer abandonné ko mu jaare fa yóbbu ko tribunal a nangu ay bienwam ndax ndaw si booy xool genre comportement boobu la yor ndax noonu la piégé première jëkkëram bi ba nga xam ne premier jëkkër bi mer na ci xeetu violence yi mu ko doon def ba waa ji génn abandonné ko un mois ndaw si sukkandiku ci abandon un mois boobu daal di ko yóbbu tribunal ak gañe gardu xale yi en plus toog ci biir këram nee na nag looloo tax mu def ko mais du soxor du dara dafa bëggoon woon ne ndaw si rek àddina du ñëpp ngay dugg ci seeni problème nga génnee ci noonu parce que am na ñu la gën a xam yoon am na ñu la gën a xam loi mbokk internet yi nag lii moo tëcc histoire waa ji nga xam ne gis ngeen xeetu violence bi mu sekk ak jabaram ba tax na nag nee na mu indi ko émission nettali non seulement pour sauver yeneeni góor yi nga xam ne peut-être ndaw si mi ngi leen yootaan pour sëy ak ñoom pour it mën leen a def comme moom ni mu ko def ba tax na rek mu di ko partager ak mbokki góoram xam ne na jigéen ñoo xam ne ñu ngi fii ci senegal dañoo bëgg di sëy di njëkkantu di yóbbu seeni jëkkër tribunal pour mën a nangu seeni bien wala mën a nangu li nga xam ne ñoom la ñu jot a am akus néew nee na nag lii moo nekkoon histoire waaye moom daal xam na ne ndaw si dootul gisati ku mu gis rekk daal di lay bëgg a ji yóbbu tribunal ngir gañe la wala sax ngir ñu daan la wala ngir ñu amande la nga fay ko ko mu def ko ci gafakaam lii daal la mbay Ndiaye naan bàyyi leen ku ngeen gis rek ngeen dugg ci moom ngeen yaakaar ne di ngeen ci génne noonu ay ca lii moo tëj histoire waa ji di ko di ko ñaanal rekk yàlla génne ko ci xat-xat yooyu ndaw si tamit ñu koy ñaanal ndax nag Sénégal bëri na sëy yu bëri ay difficulté sëy yu bëri ay problème yàlla ñu yàlla dolli sutura boole noog ay partenaire yu baax partenaire yoo xam ne amuñu benn intention bu bon pour ñëw partager ñun li nga xam ne moo di àddina ndax nag nit ku ñëw pour sa yëg yow yaakaar naa ne dafa dël décision pour partager ak yow dundam kooku nag su amee benn xalaat bu safaanoo wax dëgg yàlla mun na la jekku yàlla nañu ci yàlla musal di leen jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal suñu DG Sey Latir Kanasatu la Coréenne moo nekkoon na ci caméra bi di leen joxaat dig daje ci yeneen i nettali lii nag moo ndar képp histoire waa ji moo nekk cinquième partie histoire waa ji di leen joxaat dig daje ci yeneen i yoo xam ci lool ba nga xam ne dañ koy dagg di ko dugal ci Thiès Info d'ici là portez-vous bien et bonne suite de programme sur Thiès Info